يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت خبر طبيبي يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت خبر طبيبي أنت jaay anta kanzi

asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñuy nuyu mbokki taalibe yëpp di siyaare di balu di balu di ñaan suñu borom mu boole ñu bal di jiital ñaanal saahibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yokk aw fanam ak wéram ba liggéeyu lislaam bi nekk ci loxo mu yóbbu ko fukkaay njort yëpp te naandu ko ak moom ci barkib sëriñ bi di leen nuyu ci turu Serigne Modou Xaban Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moom la Serigne bi jëwriñal ci liggéey bi di ko ci ñaanal ndam ak tawféex bu baax a baax ba li ci sëriñ bi yaakaar ci moom lépp mu am ci lu kawe njort di fàttaliku it jëwriñ ji nga xam ne moom lañ ci àndaloon muy sëriñ Mame Mor di ko ñaanal suñu boroom dolli sax di dolli ay leeram ca fam ne ci barkeb Serigne Touba su loolu jàllee fillaahi alhamd xam ngeen ne ca suba ba nëga ni mbooloo maa ngi nii ci biir jumaa ji ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mouhamadul Mountakha santaane woon ñu di ko ne doxale muy fii ci biir jumaa ji waaye sax di ci barab yu baree baree bari ci biir dëkk bi ba ci biir réew mi daayira yi ak kër Sëñ Tuubaa yëpp ba ci bitim réew ñu ngi maase tey jii ci bés bi di bés bu yaakaaroo yaakaaru nga xam ne ojaaj yi ña ca Arafa Euh, taxaw Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne fii tamit nañ ko jàpp ci bis boobu kon jiital ci tuubal suñu borom jéggalu ko balante ay àq sàkk ay sarax waaye nag jàng téere bi ñaan suñu boroom mbas mii ne ci réew mi ak ci àddina bi yëpp mu saafara ko euh, ñaan jàmm ci nawet bi suñu borom tooyal ko sottal ko te muurloo ko te jaamoo ko yàlla. waaye ñaanal ko moom Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal kilifay diine yëpp ñaanal njabootu lislaam gépp Euh, tey jii nag donga yi ñu ngi ci baax a baax euh, ànd nañoo sëriñ bi mu def léegi wër waaye yéemu na ci mbooloo mi ndax fii ñu toll ci xataay nga xam ne daara yu bari jàppoon nañoo bër waaye bi biñ déggee ndigalal sëriñ bi dañoo téye donga yi kër yi tamit itte yi waaye dafa mel ne feeñu ci li ñuy wax ne ndigal bu mu xam ay soxla kon murit yi seeni soxla tey jii ndigal li xamu ko jumaa ji fees na dell mbooloo mi wet gu nekk ña nga fa ñu ànd bëgg a wéyal noonu ci téere bi ba julli tisbaar buñ sëlmalee euh, sëriñ bi euh, xatmu euh, jottali kàddu yi sëriñ ba mbooloo mi yeewi ko incha allahu taala waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.